Mass arbitre baa ngi wax ak ñaari mbëri dimanche 5 mai 2024 fii ci arène nationale Albourakh Events moo ñu fi indi Baye Ndiaye nekk ca bopp ba ci diggante combat bi nga xam ne moo war a dox ci Eumeu Sène Sa Thiès arbitre bi muy seen diggante ñoom ñaar. seetaan ngeen léegi Tapha Mbeur Mor Kang Kang seetaan Liss Ndiago Pokola Baldé arbitre bi nee na ñaari ndax pare ngeen nee ko liggéeyal loolu sa loxo bi ba pare arbitre bi suuf la ne Eumeu bi suuf la arbitre bi sifflé na Eumeu Sène Sa mi ngi jat kàbbar na Eumeu Sène Eumeu ko ko mu waŋasu nga xam ne mooy lapptaake yi lewtoo lewtoo bu yam Eumeu Sène Sa Thiès ñi ngi lewtoo lewtoo bu yam Eumeu Sène ngi na tekk di ko diglu Eumeu Sène mi ngi ne tekk di ko diglu lamb ji nag tey dafa guddee il est 22h38 la ñu soufflé combat bi arbitre bi nee leen bëre leen ñoom ñaar doxe nañu wet ñu ngi def ay déplacement latéral doxe nañu wet Eumeu Sène Sa Thiès ah Sa bi yoon dañ na ko mu taxaw Sa Thiès bi yoon doon na ko mu taxaw Sa Thiès laawul bëre lii bi yoon doon ko mu taxaw ñoom ñaar mel na ni ñu ngi bëgg dëggal seen bopp Sa Thiès bu arbitre masaana sifflé rek day tàkk sa kaw boo arbitre masaane siffle rek day tàkk sa kaw ñi ngi def ay déplacement latéral nee nañ wax tekk taxaw ñoom ñaar Sa Thiès méb na nee na ko noonoo ñëwuma <laughs> laay laa cey biib làmb cey bi combat nar a bari kalkin cey bi combat nar a bari kalkin léegi 23h jot xanaa làmb ma seeg fii xanaa ci ci arène bi xanaa làmb ma seeg fii ci arène bi 23h mooy arbitre sifflé na lu muy wax nee leen bëre leen mi ngi wax ak ñoom avertissement verbal la bii bu delsee kenn ku nekk day am avertissement arbitre bi sifflé na Eumeu Sène suul na ay tànkam lewtoo Sa Thiès na dajeeku war a dem eh Sa Thiès na Sa Thiès door na am arrière am arrière eh dañuy xeex xeex wala lan dañuy xeex xeex wala lan dañuy xeex xeex wala lan laa ilaaha illallaah <laughs> ñaman danan taxaw ñaman danan taxaw ñaman danan taxaw ah, na dóor waaye xam na ne li mu fekk foofu du ñeexu ñebbe kenn ku ne ñam nga sa morom dal ñu taxaw Sa Thiès mi ngi na teg am na mi ngi na teg léegi luy xew ngi na teg am na mi ngi na teg ñu ngi jàppante baaraam waaw waaw Sa Thiès mooy xale mooy wut si am na danaan teg di ko déglu rek. ama danaan tekk di ko diglu rek waaw waaw ama danaan tekk di ko diglu ah Sa Thiès warta nangu lii <laughs> Sa Thiès warta loolu ñu wax waaye nag bare la bëre moom déedéet ah déggoo ma ne la Sa li mu yaakaaroon amul Sa Thiès li mu yaakaaroon amul ndax bi ñu xeexee a ah, xam na ne dara ngi fi bi ñu xeexee xam na ne dara ngi fi. ñu ngi ne Leewtoo ñu ngi Leewtoo ah ñu ngi Leewtoo Sa Thiès day dem Sa Thiès day dem wala. sànni na benn ko droite waaye dalul Sa Thiès day dem wala Sa day dem wala lan la lan la loxo bi daa dem lan la baaraam bi daa

mbaa bi dammul lan la lu xew Eumeu Sène nee na ñu jug Sa Thiès nee na gaa ñu jug dara dalu ko kon Sa Thiès Eumeu Sa Thiès Eumeu Sène arbitre bi sifflé waat na arbitre bi sifflé waat na arbitre bi sifflé waat na arbitre bi sifla waan na ñi ngi lewtoo deme wet ñi ngi lewtoo deme wet Sa sànni na korose goos ñëwaat lan la lan moo xew lan moo xew. xam nga. lan mbaa dund ko mënatoo bëre. mbaa dund ko mënatoo bëre. mbaa dund ko mënatoo bëre. mais fii. bu dee dañ ne Sa Thiès mënatoo bëre ëmb la ñuy jox victoire ah waay mbaa dund na mbaa dund ko mënatoo bëre en tout cas Sa Thiès a ci ardo ba tey ñu koy defal benn pompe baaraam bi dafa mel ni moo am problème la ñu wax baaraam bi dafa mel ni moo am problème la ñu wax ah ah baaraam bee dagg baaraam bee dagg la wax dafa dagg waaw. baaraam bi dammul dafa dagg arbitre sifflé waan na arbitre bi sifflé waan na arbitre bi sifflé waan na Eumeu Sène peut-être mën na am tuuti difficulté ndax dafa bàyyi maninam dafa bàyyi maninam dafa bàyyi maninam dañoo leen daje daw leen daje daw leen daje luy xew luy xew luy xew oh luy xew luy xew luy xew luy xew luy xew oh, luy xew luy xew luy xew luy xew Eumeu Sène Sa Thiès Eumeu takk na ko Eumeu takk na ko Eumeu takk na ko Eumeu daan na Sa Thiès Eumeu daan na Sa Thiès Eumeu daan na Sa Thiès Eumeu daan na Sa Thiès Eumeu daan na Sa Thiès Eumeu daan na Sa Thiès Eumeu daan na Sa Thiès Eumeu daan na Sa Thiès Eumeu daan na Sa Thiès Eumeu daan na Sa Thiès Eumeu daan na Sa Thiès Eumeu daan na Sa Thiès daan na Sa Thiès daan na Sa Thiès daan na Sa lan moo xew Eumeu moo ah. ah ah nan xool luy xew nan xool nan xool luy xew lan la lii lan la VAR bi la ñuy xool lan. Eumeu Sène daan na Sa Thiès Eumeu Sène daan na Sa Thiès Eumeu Sène daan na Sa Thiès Eumeu Sène daan na Sa Thiès oh Eumeu Sène daan na Sa Thiès lamb Sa Thiès jaxasoo na mbay non lamb Sa Thiès jaxasoo na Eumeu Sène daan na Sa Thiès Eumeu Sène daan na Sa Thiès Eumeu Sène daan na Sa Thiès Eumeu Sène daan na Sa Thiès la ilaha illallah oh Eumeu Sène Balla Gaye ngi noonu waaw mais lamb ji nu mu demee Balla Gaye jël na ko nee na Balla Gaye nee na ko amul problème Eumeu Sène Eumeu Sène daan na Sa Thiès Sa Thiès a jiitu Sa Thiès a jiitu oui Sa a jiitu c'est vrai a jiitu c'est vrai a jiitu oh Eumeu Sène daan na gisoo gisoo gisoo